wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin bokki jullit yi bokki ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen nuyu nuyu bu lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di ñaan sunu borom tabaraka wa mu dolli xéewal ak tawféex ak jàmm ci sunu réew mi di Sénégal ak mboolem réew yi ci àddina bi yépp euh, gannaaw loolu mbokk yi ñëwaat nañ ci seen jataay bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy def euh, di ci ànd ak ay boroomi xam-xam ñu gën cee miin euh, Sëriñ Mbàkke Abdourahman ci weer wu nekk ñaari yoon tey jii tamit ñëwaat nañ fii kon ci Daaru Salaam Ndaam fii ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane di borom xam-xam bu mag di mufti e, bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Serigne bi dénk daara ju mag jii di université Cheikh amoon Bamba waaye ngeen miin ko bu baax a baax ci liggéey bii di liggéeyu Muxaddamatul Xidma ak jumaa ji waaye rawatina seen bii nga xam ne mooy seen seen CMT TV wala MKTV émission gàggantiku nag e, jàpp naa ne présenté nañ leen ko ni nga xam ne ni lay doxee saa su nekk. Euh, dañuy seet benn tomb boo xam ne laaj nañu ñëw gàggantiku ci ngir ñi ko xamoon nafar ko waaye ñu ko xamagut euh, xam ko muy luy jariñ lu ñuy jariñ ci suñ mbiri àddina ak suñ mbiri ëllëg euh, xam ngeen ne nag niñ ko baaxoo ci tomb yu bari niñ ko tàmbalee woon ci laab ak julli ak yu demee noonu noonu lay wéyee waaye ci biir émission yi ñu def bokki jullit yi nekk ci àddina bi eh, numéro bi ñu leen di jox nga xam ne ci la ñuy yónnee laaj yi dañ ciy yónnee ay laaj yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne dangay xam ne nit ñi tamit seen diine ñor na leen eh, ci biir koor gi tamit laaj yi ñëw tamit eh, jiitu woon émission bi ñëwoon ci émission bi tax na am na ci yoo xam ne ci biir koor gi lañ ko tontu am ci nag yoo xam ne tamit des na yu bëree bëri yooyu yëpp mi ngi fi incha allah mbokk yi nga xam ne ñu ngi yónnee laaj daal ñoom ñëpp. ñu dalal seen xel ne laaj yi fi ñëw yëpp incha allah euh, sëriñ Mbàkke Abdourahman dina ko tontu waaye tey jii nag moom dañuy ñëw ci loo xam ne mooy actualité bi te ñu jub ko muy ponkub lislaam bu am solo muy muy muy aj aj Makka euh, ñu war cee indi ay laaji gàggantiku yoo xam ne bokk yi laaj nañ ko mu doon loo xam ne jàpp naa ne suñ ko tontoo ñi nga xam ne war nañoo dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ren ñëpp danañ mën a xam ci laaj yooyu ñu laaj nan la ñuy mën a joxe seen farata jooju ak nu ñuy lu ca war lépp ci seen wàllu jaamu yàlla ñu xam ko kon su ko defee sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo nuyoo bokki taalibe yi xam naa ne it namoon nañ jataay bi lool ndax uh, yónneen yi ak message yi bari na lool di laaj émission ku moom kañ lay ñëwaat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 di jaare ci yow di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi àndak ak ñun ci jataay bi di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmmi àddina ak alaxira di sàkku ñu ñaanal ñu ko di tàmbulee nuyoo yeeg siyaar yëpp na ci Mawlaana Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sunu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral waaye di nuyu mbokki yëpp di ci al ashhur al xurum yi nekk weer yi nga xam ne weer yu sunu borom warmal la te ñetti weer yi sësaloo weer bu ñu nekk moo ci jiitu zul qaadati zul xijjati muharram ak bul far suñu borom waxoon ne ay weer la yoo xam ne bu dikkee bu leen ci tooñ seen bopp maanaam borom xam-xam dañuy wax ne topp ci yàlla mu ëpp njëriñ waaye mooy ci yàlla mu ëpp lor hmm. kon weer yu barkeel lañu ci ndokkeel julli yëpp di soññi suñu bopp den leen yi ñu gën cee góorgóorlu ci lu baax ndax lu baax da ciy fulu waaye gën cee moytu ab safaan ndax da ciy fulu di ndokkeel baax nag daayiratu Muxaddamatul Xidma tàmbale ci sëriñ Afiya Limaam di leen nuyu si Abdoulaye di leen ndokkeel di rafetlu liggéey bi am na solo lool dimbalanteeg mbokki julli ni ci luy tax ñu xam seen diine ndax ñu mën a am seen ngërëmul borom jërë ngeen jëf. ci madhabu ifraat moo gën ci xeeti aj ifraat waaw. luy ifraat aj gi nga xam ne. Mhm. boo ko defee li tax ñu jàpp ni moo gën ah, tuur dara warul la yeneen ñaari xeet yi ay dem yëpp bokk dafay te dëkkoo màkk da nga tuur dara uh-huh. te tuur dara ñaare day mel ni day jàng lu manqué moo tax ci masa bu ñoom la ñu wax dañuy wax sax ñoom ne yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ajug ifraat la dafa am te wax yu bari wuute yu bari am na ci uh-huh. waaye xadis bi soxna sa waxoon moom ba ñuy armal ifraat lañu armaloon uh-huh. dégg nga aju ifraat mooy nga yéene ak kese nga xam ne bi nga yéene fas yéene aj màkka yàlla nangul la ko yombalal la ko te nangul la ko loolu da nga yéene loolu moo tudd ifraat mooy bi gën ci masal bi dañ koy jàngale beneen bi ci topp mooy tamatoo tamatoo mooy dangay ngay bu bu agsee abaran yi doo yéene aj umra ngay yéene loolu nag ki mu baax ci moom mooy ki nga xam ne teel naa dem waaye bu fekkee dangaa bokk ñi mujj dem moom nga xam ne boo fa demoon umra fa bala ngaa jeexal umra boobu ak tàmbali ah. kooku amul njëriñ wala bokk sax du gën ndax day sësaloo sësaloo xam du ko jar waaye ki nga xam ne masalan tey dañoo ñu wax ci misaal ñu ne ci biir weeru zul qaada la dem waaye ba mu àgg të weeru tabaski sax kooku mu def tamattu dana ko noppal ci wet mooy bu agsi abado ali day yéene umra ñaan yàlla mu mu nongul ko ko te yombal ko umra it aj la gu ndaw bu dikkee màkk moom ki yéene umra day def tawaaf dox safa marwa daal di yeew daal di daal di watu ba mu le na daal di solaati yéreem yañ ko doon tere ngir armal lépp daga naan bu demee ba juróom-ñetti fan ci tabaski mu armalaat nag ngir aj nga xam ne daa aj na maanaam umra na aj na ci menn at mi loolu moo tuur tamattu bu ko def da nga tuur dara da nga am am xat ci gileem ba ci xar boo ko amul danga nga woor fukki fan yoo xam ne ñetti fan yi màkk nga koy woore juróom-ñaari fan yi boo ñibbee ñetteelu xeetu aju mooy xiraan mooy kii boole yëpp dafa ndaw jenn jëf lay def mu boole ñaar yëpp hmm. nga xam ne bu yéene ci yi day yéene umra gu ànd ak aj ba tey mën naa doon xiraan nga yéene umra kese ba nga ñëwee ba màkka dolli ci aj hmm. njëkk ngay tàmbali tawaaf wala nga tawaaf ba noppi te julli goo ñaar rakka yi mu fi ne mën na ko mën nga koo yéegal daal ni maa ngi dolli fa aj hmm. su ko defee boobaa nag ki boole ñaar yëpp bu dikkee màkka day def tawaaf tawaaful xudum lay doon xam nga kële nga xam ne umra la def si moom tawaaful xudum waru ko kooku tawaaful umra moo ko war day def tawaaf dox safa marwa daal di wattu mbaa mu jeex kii def nag euh, xiraan day yéene aj ak umra waaye ci yéene ji umra gi mooy jiitu bu dikkee dafa def tawaaful xudum dox safa marwa àggale ajam waaye yi muy def ni yëpp nag ak geeg dox googu muy tawaaf bu muy tawaaf ah aj umra gi ko bokk mm-hmm. mm-hmm. tawaaful ifaada gi aj geeg umra gi ko bokk kon jenn jëf la waaye ñaara koy bokk mm-hmm. loolu mooy xiraat ku def loolu it da nga tuur deret boo mënta tuur rek nga war fukki fan ñett yee foofa juróom-ñaar yi boo ñibbee ifraan nag mooy nga yéene aj kese ñëw aj ba jeexal Mm-hmm. donte nag am na ci ñu bari ci nit ñi buñ ajee ba aj gi jeex ba ñett fan ñu ni jàll mm-hmm. ñu dem armalaat ngir ñu def si omra loolu dagan mm-hmm. donte nag ki xeeti aj yi am moom bokku ci woon nga xam ne moom da def si aj ba noppi waaye biir fani fani aj moom mënoo ci omra da ngay ba aj ñetti fan yi jeex nga bëgg ba bëggee omra nga daan dem génn dem Tanaim masjidu Aïcha boo demee nga armal fa daal di ñëwaat daf sa umra. loolu mooy ifraat wala. te loolu moo tudd ifraat ba tey ci xeetu ifraat. ndax ifraat gi nga xamoon. waaw gis nañ ñuy bàyyi ko Sénégal ñu bëri noonu la ñuy def. waaw ifraat la ñuy def moom waaye ñun dañuy dañuy ifraat ba noppi tekki umra. Mm, waaw ndax soxna Aïcha dañuy wax ne bi mu ñëwee màkk di aj si daa ñëw ba jub màkk am ngant am ngànt xam ne warul kaaba gi. Mm-hmm. léegi nag ak dong la bi ñuy ñibbisi. mu ne ñii aj nañ umra nañ man nag aj dong laa def nar a ñibbi yonent bi walla ko Abdourahman bi mu mm-hmm. mu dem taa nañu aramal fa ñëw def si umra xëy mën naa am loolu te xëy na nit ñi di mm-hmm. def loolu mm-hmm. waaye li tudd ifraat moom aj kese la waaw bu aj gi jeexee jeex na léegi nag nga dem fani fani aj jeex na ñett fani mi neen jeex na nga dem def sa umra loolu leneen la ne geneen jaamu yàlla la goo ah, defaat lay doon boo defee nag ñetti xeet ajo yi moo am ci mazhab Maalik dañuy wax ne ifraat moo gën ndax boo ko defee tuur deret du war waaye nag lu mën a xew mooy yëpp baax moom yëpp baax ndax bu ci nekk sax na ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sëriñ bi tontu bi leer na lool macha allah euh, mbokk bi dafay laaj mu ne lan mooy wartee fi aj ak lan mooy ab atteem ci koo xam ne bàyyi nga ci dara ci ci ci ci wartee fi maanaam ci waajibaat yi waaw xam nga li tudd farata ak waajib bu dee ci yeneen bunt fiq yi ñoo bokkaat mhm. aj rek la ñuy xàjjale yooyu mm-hmm. li ñuy tuddee waajib mm-hmm. xam nga ñoom dañuy wax rukkunu ak waajib mm-hmm. rukkunu mooy ñeent yi ma la waxoon ne la bu ci benn manqué aj mooy wër kaaba gi ci bisu mooy armal ak dox sa ak marwa ak wër kaaba gi ci bisu tabaski bi ak taxaw arab mooy rukk ni yoo ne bu ci benn manqué rek aj moom benn loolu doonul luñ ci mën a réparé moom moom koy faw nga def ko lu mat a xam la waaw am yoo xam ne nag ay yu war la waaye mën nañ ko jàng hmm. mooy boo ko defut da ngay tuur dara hmm. yooyu nag xam nañu bari hmm. bokk na ci armal ci barab bi nga war a armale wax ne la ñun waa ma waa waa Sénégal yëpp naa leeral ñi nga xam ne jaariwuñ Madina nag jaar Jidda ñoom nañ bàyyi xel na ci biir avion bi la ñu mën naa bàyyi xel ndax kuy wàcc Jidda da ngay romb sa miixa boo dee ba jëdda door a wàcc romb nga sa miixa te romb sa miixa door a armal tour de dalay war ndax nit wërta romb fi mu war a armal te armalul moo tax ñoom danañ ko bàyyi xel bu duggi avion ba tolloog ki dañ lay wax ne la waxtu amal jot moo tax ñu mel ne fekk Sénégal lañ déparé te duñ escale fenn hmm. nañ sol seen yére armal ba la ñu départ bu fekkee escale nañ fenn nag fañ escale nga xam ne buñ dugaatee duñ taxawaat fenn ba jidda nañ nañ sol seen yére armal foo mu mënee sangu nañ sangu sol seen yére armal ndax bu ñu wàccee ji romb nañ fi ñu ko war a def waaw bu ko defee nag ndax mooy leen wax ne leen agsi nañ fu ñuy armale armal leen bu dee avion da ngay toog bu fekkee avion la bu mën a taxaw julli nga di julli sa ñaar rakk boo ko ni nga toogee julli sa ñaar rakk ci junju boo sëlmalee fas yéene li ñuy wax léegi ifraat wala xiraat wala tamato bu ko defee booy wàcc jidda fekk na yaa ngi ci armal gi yow hmm. bu ko defee armal nag boo ko xasee def niñ ko waxee sànq labbayka lay àndal mm-hmm. fi ngay armale rek ñu wax labbayka allahumma labbayka mm-hmm. foofu it yëpp laa jar na leeral ne lii sunna mm-hmm. mooy labbayka kenn ku ne di ko defal boppam siiw na loolu xëy na am kuy dëbbe ñuy aw waaye doonu ne ci dëgg-dëgg loolu mu gën ñu ko war a jàng ba man ko kenn ku ne di ko defal boppam ci anam goo xam ne du sësaloo ba ngay ba ngay waaye nag du sore ndax ku ko bàyyi lu mat genn wàllu bëccëg tur der war la te boo ko tàmbalee fi nga armale da nga koy wéy di ko wax bu julli jotee nga dagg booy demoon ak dagg boo dee nelaw dagg bu amoon gan wax ak moom dagg waaye bu mu da ngay dagg bu mu yàgg man nga rek taxul labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku laa sharika lak toog tuuti labbayka allahumma ndax day mel rek sa wërd la nga saxal ko su agsee màkka ci nga koy door a bàyyi dem tawaaf dox sa tawaaf dox safa ak marwa tàmbaliwaat mm-hmm. boo ko tàmbaliwaatee nag doo ko bàyyi féeg ak agguñ ci bisu arafa. ay ah. ñëw ca hôtel ba di waxtaan ak yooyu yëpp du tee da nga war di. Eh, da nga a labbe moo tax hmm. léeg day mel ne. Hmm. buñ xasee tabax ba noppi ba léegi si moom. Hmm. daanaka day day fàtte ne ñu ngi woon ci te dañuy bàyyiwuñ xel ne boo toogee lu mat genn wàllu bëccëg te labbay ko woo tur dee war na. da bàyyi xel bàyyi xel ne loolu sa ndigal. loolu di ko wax di ko wax ba ñu ne tey la yow mu arafa ca bëccëg boo àggee ca arafa tisbaar jot foofu nga koy bàyyi. boo àggoon tisbaar jotut hmm, doo ko bàyyi ngay wéy di ko def kon ñaar la laaj nga àgg ci barab ba tisbaar jot mooy tax nga ba ko su ko defee foofu lañ ko bàyyee moom waaye fii àggoo foofa diggante bi nga koy bàyyi digg moom bi nga agsee Màkka ba war a dem di def sa tawaaf xudu ak ndox soo marom diggante bi da nga koy bàyyi waaye soo noppee ci loolu la da nga war a tàmbaliwaat yu bari nag dañuy nopp rek far wéyal bàyyi oh. dem ci garam place yi di waxtaan di seeti oh, fekk yow sa ndigal mooy ngay la waaw loolu jàpp naa ne mat bàyyi xel lool ci ndax laa béykat moom ci yi nga xam ne boo ko bàyyee ab diir bu yàgg tur dara war la ci la bokk kon ci war tée fi aj la bokk kon armal ci mii xam bi ñu war a armale hmm? wax naa ne bu dee Sénégal benn nga jaar Madina yaa wax Madina ba abaro ali nga armale wala nga wàcc Jidda bi ngeen ci biir géej gi ci ngay armale avion yi ñoom danañ def saabu ak accès fi ñu war a armale danañ wax ci ñëpp dégg ci biir avion bi ne aksi nañ fi ñuy armale loolu nag foofa ngay jóg dugg ci wanag di sol yëre armal du yomb moo tax li gën mooy fa nga mujj wàccee escale bu fekkee escale am na foofu ngay solo sa yëre armal bu fekkee nag direct la Dakar nga jóge boo demee aéroport solol sa yëre armal mhm. dugg ci avion bi toog buñ nee armal jot na boo mënee julli nga julli ni normal boo ko mënul nga toog julli boo sëlmalee fas ak gi nga def loolu it jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la sëñ bi ci des it euh, tawaaful xudóom ci waajibaat yi la tawaaful xudóom nag ki armal ngir aj kese te dëkkut Makka ak ki armal ngir aj ak gum boole muy xiraan ñoo koy def oh. waaye ki def tamattu nga xam ne umra def si kooku tawaaful xudóom nga dëkk nag sun euh, waajib la ci kaw waxtu wi xatut hmm. ku tardé woon ba nga xam ne guddi euh, juróom-ñeenti fan nga agsi nga xam ne boo fi nekkee tawaful xudóom fajar mën naa jot te doo àgg arafa da ngay bàyyi tawaful xudóom dem direct arafa nga taxaw arafa bañ la raw kon ki mu doon sunna ci mooy bu xatut moo nekk waajib ci moom xatut kon loolu it euh, mat naa bàyyi xel bokk na ci it ñaar rakkaa yi ñuy julli ginnaaw bu ñu defee tawaful xudóom ginnaaw bu ñu defee tawaful xudóom ñaar rakkaa yi ñuy julli te ñiy taamu nga jullee ko ci ginnaaw maqaama Ibrahima loolu it ci waajibaat yi la bokk bi ci desit dox safa marwa dox safa maro dañ koy jokkale ak tawaaf hmm. bu war maanaam kenn du jékki-jékki rek xam nga léeg-léeg gis koo xam ne day day day tawaaf tawaaf bu yàgg lool mu sonn daal na bëgg a noppal bu ngoonee ma ñu def si dox safa leen di sësale da ngay génn ci tawaaf bi dugg ci dox hmm. te it dox sa tawaaf bi nekk tawaaf bu war kon tawaaful qudum wala tawaaful ifaada ngay def tekki dox safaak maroom maroom mu dëgër loolu it ci waajib bayit la bokk mm-hmm. ak it yendu arafa tisbaar nekk ba timis loolu waajib la dara ci guddi gi fekk la fa mooy mooy rukkunu waaw dañ fay dem nekk fa ci bëccëg ba ngoon li ñu fa yenn noonu loolu waajib la mm-hmm. boo ko defutoo ngir ngànt dangay ngay tur deret amma guddi gi nag xam nga boo gisee ni ñuy def mooy dañ fay nekk ba jant bi so ba kenn ba mu wóor ne guddi gi dugg na lu mu néew néew am na as ndiir sox dugg ko ci guddi mm-hmm. yow taxaw araf mat na mën ngaa départ waaye nag koo xam ne guddi gépp jaaroo fa diggante bi jant bi sooyee ba fa jar jaaroo arafa benn yoon yow taxawu araf kon li jiitu muy bëccëg bi loolu waajib la waaye li ngay laal ci guddi gi mooy rukkunu bi nga xam ne boo ko deful aj gi du bu dee lee nag aj gi baax boo fa yënduwut masala ni mën naa wéeru di nekk hôpital ba jant bi so ñu indi ko mu ñëw arafa kooka waajib la bàyyi waaye bàyyi wu rukkunu wàcc Musdalifa loo xat-xat boo jógee Arafa na nga jaar Musdalifa wàcc fa wàcc say bagaas julli fa timis ak gee boole leen te wàññi gee mos fa dara loolu mënta ñàkk moom ku ko defut ku ko defut da ngay tur dara fanaan fa nag sunna la fanaan fa moom sunna la waaye jëm wàcc gi mënta ñàkk waajib la mm. ku ko defut day tur dara wàcc gi wàcc wàcce la ci am ñoo xam ne day ñëw oto bi taxaw kenn du wàcc benn bagage ñu taxaw daal di julli ñaar rakka dugaat waxuñ loolu hmm. wàcc wàcc say bagage loolu mën na sax nag mooy bu ñu mënee fanaan fanaan hmm. loolu la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam daan def daan def nag guddi gi soree jigéen néeg ñu néew doole ñi mu ñu leen jiitu ji ndax ñoo it dañoo yeexub dox hmm. jiitu gi tekki ne dañu bu àggee daanaka bu ñuy fanaanee ñoo ñoom duñ soree loo ndax ñoo leen ëpp ëpp kàttan ndax ñoom buñ buñ defutoon noonu duñ gaaw àgg ñooñu lan yebal ñu teel a jiitu ci waaye ku am kàttan toll ci moom li gën mooy nga fanaan Musdalifa boo xëyee ñu bari dañuy wax naan boo ko defee da ngay tar rek loolu dañuy wax rek mm-hmm. waaw nit ñi dañ fanaan xëy dox ak tànk fi ñu def la ñu war a def rek ak pas-pas mm-hmm. bokk na ci waajibaat yi fanaan bi nag ñetti fan yi ñuy fanaan waajib la ku fa fanaanul ab bis wala nga lu ëpp ci guddi ga nekkoo fa da nga daga tuur daal maanaam bàyyi xel na léegi nga xam nga gont dem fenn ba deux heures de matin hmm. da nga ci guddi gi maanaam lu ëpp xaaju guddi gi bu la rek hmm. dañuy jàppe ku fanaanu fanaanoo fanaanoo bi naan gis ñu jëlooto ñëw Makka ba mu neex leen ñu doo ko waaw bàyyi xel loolu dañ fexe daal balaa guddi gi xaaj nañ daal moom waaye suñ suñ fa nekkee ba weesu guddi gi xaaj koo xam ne jaaruñu fa ñoo ko fanaan ñoo yam uh-huh. boobaa tóor dara daleen di war sànni jamra ci waaji waaji la bokk uh-huh. bu dee bisu tabaski jamratu aqaba la ñuy sànni juróom-ñaari xeer bis yi ci des muy suñ tabaski ba ci suba sa dañuy sànni jamra ula jamra wusta jamra aqaba bu ci nekk juróom-ñaar maanaa benn bu benn xeer bu ci manqué day waral tur daal jël naa nag nga sànni lopp benn xeer wala mooy loolu lépp bokk na ci waajabaat di nga xam ne seen bilaat lu mat a bàyyi xel. yam ci ñaari jamra yi nag. ba tey it noonu. sànni benn wala nga ñaar boo ci manqué aw xeer te mottali woo ko da nga tuur te boo ña boo yamee ci ñaari jamra yu njëkk rek ñaari sànni yi. da ba tey mi ngi wax. te maanaam comme li ñuy wax ñetti ñetti ñetti ñetti yoon yi ngay dem bu fekkee da ngaa ñaari yoon rek. ñaari fan. ñaari fan waaw fan moom ku yàkkamti. masalan hmm. bu ñu ne woon tabaski alxames la ajjuma gaawu dibéer mooy ñetti fan mi naan hmm. da ngay sànni ajjuma ajuma ji ak gaaw ngay sànni ak mm. dibéer mm. dañoo bëgg nga bàyyi ba tisbaar jot nga dem sànni ji door a julli tisbaar mm. boo ko defee gaaw def ko dibéer boo yàkkamtee man ngaa ñibbi waaye nag na nga fexe ba balaa jant bee so nga génn Mina mm-hmm. bu la fa jant bi sooyee da ngay fanaan sànni ñett téléphone door saña dem ca tisbaar ga waaw door dem léegi nag ku yàkkamti mën naa amee ñaari fan mu dem jégal nañ ko benn fan bi waaye nag li ma ta bàyyi xel foofu nit ñi dañ naan la ñoo yàkkamti yàkkamti ñu dem tëddi rek. dañuy dem tëdd danga defoon dara. mat ja matal jaamu yàlla gi moo gën. kon nañu yàkkamti dem otel sëkk. Hmm. dana dimbali sax mu xaw a féex ndax ñett téléphone bi kenn du fa dem. Hmm. boo fa nekkee ci euh, kii bu jàpp ngay def su ko defee bu ñett téléphone matee nag boo sànn jee mën nga fa doxee moom ñibbi waaye yooyu noonu ñetti fan yooyu ki daf ki nekk tahajjud moom bis bu mujj bi bu sànniwul dañ koy jéggal hmm. waaye ñaari fan yooyu muy sànni bu nekk dañ sànni ula ak wusta ak axaba ñetti jamono yëpp benn xeer bu ci manqué te mottali woo ko dangay da ngay tourné rek bi ci desit boo sànne woon jamaratul ula mu manqué nga matal sànni wustaak aqaba da ngay mottali ula dafaat yi ci des ndax dañoo war a toftaloo it nag wala nga njëkk sànni teg ca wusta te ci aqaba kon dañoo war toftaloo loolu lépp dal euh, bokk na ci yi nga xam ne ay ay waajibaat lañ koy tuddee ci ci aj nga ne boo ci bàyyee benn Mhm. tourné délewar sëñ Abdou Lahad it jàpp naa ne mbokk yi war nañ ko bàyyi xel baax baax mhm. lu ñu jàkkam jàkkamte ñenn ñi mi naan ni mu rek léeg kilifa yi mel ne mbokk sëñ Abdou Lahad dañuy bëgg-bëgg dañu ne fanaane màkk ndax moo gën a feex ah, waaye da xam ne jaamu yàlla borom barke yi dem foofu moom na nga mhm. xam ne ku fay dem da nga jaamu yàlla ndiir sa nga fay am di toroxal sa bopp ngir yàlla loolu yàlla soxla ci jàmm ñu yëg ni mool li moom nga nangu moomeel gi eh, loolu mooy sippi bàkkaar yi mooy yokk daraja yi moo tax te it métti wut boo ko métti nag wax dëgg yàlla wax yàlla waaye réew ma jàpp jàppandal am na ci taxawaay ñi def ay tànt la ñuy def te dañ ci sonn ay wanag dana fa am yëpp dana fa am. Mm-hmm. xëy na nag benn tant mbooloo dajal fa nga yor sa comme nu ñu ko tuddee ci mer gàddu yooyu. Mm-hmm. xëy na léeg lu métti ci koo xam ne mënutoon loolu. Mm-hmm. waaye nañu xam ne foofu jàmm yàlla la. ginnaaw ki la sant ne bu dikkee bul sol yére bul sol yére foofu dañuy tere ko sol yére góor bu xasee armal dootu sol lu ñaw. du yor lu peeg aw yaram ab jaar du ko takk du takk mënta du takk ndomb yooyu ñu bàyyi ko xel xeetu yooyu mën nañ ko bàyyi fi ba ñu dem boo xasee du doo defati lu peeg saw yaram ñaari morso ngir woddoo benn bi benn bi nga làmboo te woddoo gi it doo ko fasit nag woo daf sër bi nii di ko fas de danga koy taxañ kenn du ko fas làmbaay gi kenn du ci takk ay ay ay kii ping ak i bouton danga koy gëf nii rek ah loolu de gars yi moom da nga gis làmbaay goo xam ne day am bouton day amaale bouton mook la ñëw ñoo hmm? bàyyi xel loolu kenn du ko koy gis defarlu ak seen fii ci seen mu am ay poos ak yooyu nga xam ne ci la ñuy takkee camara camara gi maye nañ nga yor ko ndax dañ ci dañ ci sa xaalis di ci dañ ci say pièces ah. waaye camara gi nag saw dara lay takkee du takk ci kaw sër bi hmm, da nga koy féetale biir waaw ah, day ne ci biir sër bi ne ci kaw su ko defee su ko defee Eh, noonu la ñu ko defee yére bi ci kaw danga da nga koy woddoo sàngoo nii rek muur la moo tax fi ne saa bu tawaaf amee booy ñibbi gis mbooloo ñoo xam ne yaram ne la ñu ñibbee mm-hmm. Mm-hmm. ndax day rëcc te foofu bu xasee rëcc mënoo sëgg fab mm-hmm. waaye yëpp nag ñu xam na lu yàlla bëggee foofa it naan sama yaram day feeñ moom kenn tëlatu lool waaw day wane rek jàmm bi ne ab jàmm la ndax tey ab diir bu gàtt mu jeex nga jële ci yiw woo xam ne mën na laa musal àdduna ak alaxira jër jër jër jër ta bañ daal ñu ngi bàyyi loo xel mbokk yi baax a baax. barakallahu fii euh, sëriñ bi dafa mel ne waxtu wi sax moom jël nañ ci lu ëpp xam naa laaj yi des na waaye dañ lay jox nga tàggoo su ko defee ñu demaatee ci suñ beneen jotaay mën a mën a mottali incha allah. waaw kay jërëjëf suñu bilaat ñu ngi lay dellu la siyaar bu baax di nuyu mbokk yi di la ñaanal tawfiq ñu hmm. yàlla defal ndimbal ñu nara aji yëpp yàlla yombalal leen ko te nangu leen ko. dafa leen xajjan mabruura am solo waaye nag di dénk sama bopp leen dénk yi wii ñu xam daal dañuy jaamu yàlla buñ ñuy dem nañ xam buñ ñi biseet nañ xam dañoo jaamu joon yàlla bari na yu ci ni ñuy ràngoo ko gàlloo kenn santaani ko ak jaamu yàlla moo aju mu joon nga dem julli ji ñu bisi ñoo bokkaate léegi nag da gën a da gën kii ndax lim laaj ci alal tax mu gën a rëy mm-hmm. waaye nag ku ko jàppee noonu ku julli joon ba ñëw la mm-hmm. waaye léeg-léeg lu baax lu nit mën nag ngir yàlla ci ku am xéewal wañu dara waaye nag toggoo ci loo mënut loolu moom julli da ko war moytu nit da ko war moytu boppam moytul ko njabootam waaw bi ci sit ñu bàyyi xel ne ñiy dem màkk di ñëw di jëndi sërice yu dul jeex sërice màkk bu am njëriñ ñaar la ñu ngi sëyam la màkk bu am njëriñ ñaar la ndoxum sam-sam ak tàndarma ji al ajwa ajwa moom it islaam nee na ku xëy lekk ci juróom-ñaari doom saytaane doo mënal dara. macha allah daanaka mujj Madina la nekk ndoxum sam-sam makk la nekk ñaar yooyu ñëw fa dëkk. Hmm. sërite boo am beneen feneen am na ci yoo xam ne ci sii fenn fu la jóge hmm. waaye la nga xam ne mbarkee nga ca ndoxum sam-sam moom jiwu neen la. Hmm. day faj di saafara lu bare bari li ci nekk ci ay ay ay ay ay ay kara xarbaax sa këram toll. teen boo xam ne nii nañ waxe guddiwul noonu te ndox mu du jeex mukk 24 sur ndox mu ñu naan noonu. te kenn mësta day mësta wàññi. ba nag mënta génn foofa dafa nañ ay pexe ba tey pour yóbbu ko ci yenn bay mënta nekk foofa nag ku fa dem kon maa ngi baa ngi bàyyi loo mbokk yi nañ fexe ba bu fa naan sam-sam boo xasee dugg ci ak yoral sa bi dong di yóbbaale ci xaram bul naan lu ndoxum sam-sam yiwu neen la ba ba ngay ñibbi si waat bu indi sëri ci it indiloo nit ñi lu gën sëri ci ndoxum sam-sam laa tànga bi ajoo sëñ ñi laa ñu ngi lay sant sant oh. mbokk yëpp leen ñaanal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fika sëriñ Mbàkke Abdourahmane yal na yàlla defal tawféex ak taysiir eh, tomb yi leer na lool macha allah ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak di ñu topp kon ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal di sant mbokk yi yëpp yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon muy sëriñ Abdou bu so ak sëriñ Bàcc Ba Euh, di leen joxaat beneen numéro incha allah ndax euh, li nga xam ne mooy yi ñu war a jàngat ci aj des na incha allah xam naa dinañ ko mottali ci suñ beneen numéro bii di ñëw kon ñu ngi sant mbokk yi ñu doon seetaan ci seen émission bi nga xam ne mooy gàgganteku euh, di leen ñaanal tawféex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waj'alhu maskana xurujin min dulam للنور واكف عنه كل من ظلم